liggéey si mais ñu ngi gërëm bu baax tey sant madame Ndiaye di euh, suñu yaay di suñu xarit nekk directrice su 2STV nekk nit koo xam ne elle est formidable sur à sur tous les plans tey la anniversaire am di sopp soppe maam Abdoul Aziz Dabakh ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire yaay guddal fan amal euh, amal jàmm Euh, nous on t'aime et tu le sais très très bien on te souhaite plein plein plein plein plein plein de bonheur yal na yàlla defal la jàmmi xel ak jàmmi xol. soxna Alimatou Sy bu soxna Faat Sy euh, moom it. waaw soxna Alimatou Sy bu sox bàjjan Faat Sy. bàjjan moom it anniversaire am. démb la woon léegi du ngeen du ngeen ma du ngeen ma wax léegi kan mooy ma wax leen kan mooy sama yaay léegi. waaw <laughs> waaw maam Fatou si mooy sama yaay. ñu ngi koy ziar ñu ngi koy ziar euh, Mansour Mbaye. Mhm. mi ñu tuddee Mansour Mbaye. Mhm. di doom ci Mansour Mbaye ñu tuddee ko ko. nee na mi ngi lay nekk fii ci port autonome de Dakar